bés bi tey ubbi nañ ko muy euh, semaine euh, patrimoine Cheikh Ahmad Bamba euh, lan ngeen fi gis tey loo xam ni maanaam lu am particularité dëgg-dëgg boo xam ne ni tey murid yëpp wala jullit yëpp danañ ko jariñoo. première particularité bi xam gis nañ ko tey mooy réunir ni mu réuniré mboolem ñi bokk réew mi ci Sénégal muy ñi bokk islam bi. tarixa yi tey ñëpp daje tey macha allah tarka loolu li muy wund mooy mag ñi ko ci jël rek kenn la ko xam ne senegal yëpp dañ ko safoo dañ ko jox seen bopp dañ ko jox seen lépp tey Sëñ Tuubaa moom la ñu wane patrimoine am nga xam ne tey lay commencé semaine semaine patrimoine lay doon. waaye li ci gën a yéeme tamit mooy photo yi man photo yi li mu gën a frappé ci la bokk ndax photo yi Sëñ Tuubaa bi ñu daan dégg ci bëgg yàlla ci bëgg julli ci bëgg tabaxal yàlla ci sëru yonent sallallahu alayhi wasallam tey photo yi dañu ko mel ne photo yi léegi man léegi man cent ans mais photo yi ñëwaat na wan ñu image boo xam day mel ne yaa ngi doon dund 1923 wala yaa ngi doon dund 1918 wala wala wala wala nangam nga gis Sëñ Tuubaa ci modeste bi nga gis Sëñ Tuubaa ci ci ci ci ci ci maanaam ci charisme bi nga gis Sëñ Tuubaa ci ni ko mbooloo mi wëre ak ni mu leen daan yóbbee ci yàlla suma wa taala am na ci benn photo boo xam dafa yéeme day julli am ko ko lalal lalal kaalaam Sëñ Tuubaa jéggi kaala gi taxaw ci kanamu kaala gi julli. jël jël jëwum këpp ko suuf loolu mooy nit yàlla xam nañu suuf si dafa laab te lu gën a ci kaw suuf mooy suuf soo xam ne kenn mosu faa jàmm yàlla sax def fi seen seen jë loolu tey kon moom lañ doon ni tey mu nekk loo xam ne dana gën a wane lan mooy mouridisme dana war a gën a lan mooy histoire suñ Tuubaa ndax xëy na ba léegi génération yi ñun ñu fi nekk nekk sox ñu bari xëy na euh, ñu bari umpale nañ ko waaye euh, semaine culturelle bi dana feeñalaat lu bare bare bare ba nit ñi gën a xam kan mooy suñ Tuubaa non nouvelle ère départ la ndax euh, musée bi nga ko war a gunge nga am moo war a dajale loolu nag muy bagage Sëñ Tuubaa yooyu dana nekk beneen point de départ boo xam ne gëstukat yi ak génération future yi ñëwaat dañ leen bàyyi loo xam ne bu ñëwee la yonent sallallahu mise ba nekk Istanbul bi ba nekk Médine bi ba nekk France ak yu mel noonu musée bu mel noonu mooy am fii ci réew mi Sénégal boobaa Sëñ Tuubaa ñi mu daan jëflanteel ci mag ñu baax ñu fi nekkoon ñëpp mooy seen lettre yeeg ak bu bare bare ba dafay duggaale naa dem sax du question ne bagage Sëñ Tuubaa rek dañ fi duggal waaye seex ak ñi sëñ Tuubaa doon jëflante loolu lépp dafay duggaale ñu wane waale lan mooy njàngale sëñ Tuubaa wane kan na sëñ kan moo nekkoon sëñ ak lan moo nekkoon sëñ Tuubaa mission am ci kaw suuf macha allah. non incha allah dana am yeneen bagage ndax murid yu bari denc nañ ay bagage ñi di ko barkeloo waaye yàlla mooy sàmm ndax bagaas yi ak photo yëpp moo na réer waaye yàlla moo koy sàmm te jàpp nañ ne ñi yor ay bagage ci biir kër sëñ Tuubaa yi ak ak sëti sëñ Tuubaa yi lépp dana ko dajale indi ko ci musée bi ñu bàyyil ko fi fii génération bi xam ñooñu waat. duggee ci biir euh, dafa de départ ba ñu fi jëlee ah, xanaa ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yent bi sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha suñu borom bàyyi ko fi suñu kanam ñu ñëw fi ci ndigalu Cheikh Ahmadou Kara ndax dafa bokkoon ci ñi sëriñ bi waxoon bu tànkam féexee mu agsi fi teewal ko fi. ànd ko kilifa yi fi nekkoon par ngant am mu yabal njaboot ji ñu ñëw waaye tey ku fi dugg si rek xam ne kenn du Serigne Touba euh, jàngat nañ ci beneen njàngat boo xam ne am na ñu daan naatable ci ay xissa yoo xam ne mel ni ne ku ko dégg mel ni ku ko dégg day mel ni ne sëñ bi ñibbisi wut woon nag wala nangam man moom foofu laay waxee waaye loo xamante ne bi ngi xew 1918 ci ginnaaw sëñ bi xam nga kon loolu moom dafa gën a leer ci ndaw ñi nga xamante ne bii li ñu xam bariwul ndaw ñi nga xamante ne bii seen xam-xam bariwul ñu doon ay nasaraan di jóge fu ne ci àdduna bi di ñëw lu mel ni daf ciy baax ngir ñu gën a xamaat sëriñ bi ak jaar-jaaram patrimoine bi ñun amuñu lu du sëriñ Tuubaa te xam naa ni xëy na yeneen ak yeneen dina feeñi ji moo tax dañuy sant commission bi nga xamante ne Euh, ñoo taxawal liggéey bi nii mu doon liggéey bu mucc ci ayib te it ñuy ñaan murit yëpp rek ku ci nekk rek mu am ci archive bu mu ci garde ngir jàppale leen ci liggéey bi ci kër barkeelu bi nga xam ne fa lañ war a denc ci euh, bagage yi sëñ bi suñu borom mottali ko ñoom nañu ko yéenee yàlla defee ko noonu waaw moo tax sant nañ gërëm nañ baax a baax jërëjëf jërëjëf. mel tamit une xam ne tey ñooy ci lii waaw jërë ngeen jëf sant yàlla rek julli ci yonent bi sant sëriñ bi waaw li ma leen wax rek sëñ bi moom ay mbiram lii ay tàmbali la rek te mën nañoo jàppandi lu ndaw la ci lii ñëw ndax na ko waxee rek fekk ñeenti téeméeri at loo leen gis lu xew sëriñ bi la te lépp it nag wax na ko battalee na ko waaye nag eh, saa su ne luy gën a feeñ ci sëriñ bi di gën a neex di gën a rafet ndax sëriñ bi ni ma leen ko waxee sànq rek ñun rek la ko yàlla baaxee ñun rek ko am kon moo tax ñu war a góor góorlu xam ne li ñu am kenn amu ko ki ko wax du woon gune sëñ Fàllu moo ko wax ca mag ña la bokk dafa ne ki ñu am kenn amu ko te bés bu ne ñu ci teg suñu bët moo tax nag ñun taalibe sëriñ Tuubaa yi ñu war a takku war a góor góorlu war a gëm sëñ bi gën koo liggéeyal ba pare kendal ko. naka ngeen fas waaw mais mooy li ma la wax rek dama ne la mbiru sëriñ bi processus la boo xam ne bii irréversible la lii war a xew fokk mu xew waaye sëriñ bi e, mbiram mbiru suñu borom la amul ak yàkkamti ndax li ma leen ko waxee xamul temps. sëriñ bi waaye lu war a jot lu ne fa mu war a jotee ak na mu war a jotee dina génn dina dinañ ko dinañ ko gis eh, comité scientifique bi nag am nañu am nañu am nañu am nañu wax dëgg yàlla njàmbaar ndaxte ils ont beaucoup de mérite ndaxte lu ne day am ak tàmbali ndax yàgg nañoo wax patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba tàmbali nañu ba gis ngeen fi gis nañu fi ay nataalam baaxe nañ ñu ba ñu gis ay bagaasam yoo xam ne ay mbubaki satala ak i dal lépp am na ci loolu moo lay wane ni daray sëriñ bi réerul lépp a ngi fi ak i mbindu loxoom te moom mbindu loxoom rek mën na sobe àddina moo ko wax nee na kiraamati xatti yaddi te lii ñu fi wane moo ko bindal boppam kon bon e, di sant yàlla rek di leen accompagner di xam ni on est ensemble ca njaal benn nga ba photo ya feeñee taxawaay bañ ca amoon moom lañ ciy am ba tey ak li nga xam ne lii ay chantier la yoo xam ne dañ koy tëral dañ ciy ànd ak ñoom rek te ci ñaan ndimbal Euh, ndimbal ndimbal sëriñ bi sëriñ Muntaxa li wér ba wér euh, moo ma wax ci gémmiñam ni ma ku jóg bëgga a liggéeyal sëriñ Tuubaa dinaa ànd ak yow ak foo mën a ne kon bon seen xel war naa dal ku fi nekk rekk war nga sant yàlla ndax lii liggéey bu nangu la bu leen fàtte ni tubaab bi bi mu doon yóbbu sëñ Tuubaa jublu woon lu dul mu des fa wala nit ñi fàtte ka seetal mu ñibbisi ba bay tabax jumaa Jurbel te jumaa Jurbel nee na sunu borom daf ko fayee si ay bantam yooyu mu tegoon di ko jullee ñu ñu ñu yàq bant ya tey ñu dem ba tubaab mi mu moomoon photo yi moo jaay photo yi ba ñëpp xam ni tey sëñ Tuubaa liggéeyam lii li ko wane wane bokk na si wane ni sëñ Tuubaa liggéeyam sunu boroom nangu naka waaw kon ku fi ñëw rek am nga fierté sa xol sedd na jërëjëf